Nous avons ne nag inauguration jumaa ji euh, ndax diine mooy base bi mooy jàmm te lu fu jàmm amul rek yaakaar naa ne tabax fa dara lu jóg dina jafe euh, mu war a doon nag président de la république moom la yàlla teg ci bopp réew mi cérémonie boobu yaakaar naa ne kenn du ci le président de la république euh, maître ablaye Wade donc ñëpp xam nañ li nga xam ne ni aussi jot ko donc ñun ay ndaw président Macky Sall lañu mais dañuy lancer un appel nga xam occasion pour man Jinaan occasion la son excellence euh, le président Macky Sall euh, l'ancien président de la République maître occasion pour ñu tase te ñu jàpp ci général ñun dañuy dañuy ñaan euh, di ci dox ay ci ak aussi politique ak ñeneen ñi nga xam ay bonne volonté pour nous céder le président de la république son excellence Macky euh, Macky Sall waxtaan aussi ak maître Abdoulaye Wade pour ci dajé bobu mu donne occasion pour tay ñu sceller définitivement euh, li ñi wax né ndax euh, pour man retrouvaille la wara entre papa ak Dom mais retrouvaille la war a doon pour la grande famille libérale ñoom ñëpp yàlla dogal na ay taalibi murit lañu donc yaakaar naa ne amul occasion bu ëpp solo tey inauguration juma jooju te yaakaar naa ne sénégalais yëpp moom la ñuy xaar aujourd'hui tey mooy maître Abdoulaye Wade ak le président de la République son excellence Macky Sall ñu ànd joxante loxo pour le développement du Sénégal maître Abdoulaye Wade baayam la président Macky Sall moom la yàlla tey dénk réew mi tey kenn ku nekk ñun yaakaar naa ne soo amee ndongo da ngay ñaan yàlla mu raw la te loolu la yàlla defal son excellence le président Macky Sall président Abdoulaye Wade mu nekk sagam mu war a jóg ñëw jàppale ko pour le développement du Sénégal au-delà des chapelles et des colorations politiques ndax nag réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo donc loolu daal jàpp nañ ne dina doon occasion boo xam ne bu amee dina andi apaisement ci Sénégal dina andi climat social boo xam ne ni tey nit ñi dinañ seen xel dina gën a mën a dal ndax ñëpp aussi am nañ ci ay inquiétudes ci vraiment ñu jàpp ne xëy na

àndaat boobu noonu Sénégal moo koy xaar te ñun nag ñi nga xam ne tey ay ndaw réew mi lañ doon ay autorité à l'échelle locale mais aussi bokk ci réew mi nekk aussi ay acteur politique ñun ñëpp loolu la ñuy sàkku